mu ne waa ma taxasus waaye jagoo fi ci xam-xam xadis faqad sabaqa jiitu woon na àndoon mu moom min ahwajil ulumi muy bokk ci xam yi gën a soxlawoo ila taxasus yi jëm ci jagoo fii ci moom xadis bokk na ci xam yi nga xam ne nii ñoo gën a soxlawoo ku ci jago. bi shiddati umqi ngir tataqqutam wa saati buxuuri هي أجياتو بجيجم وامتداد أفاقي أم تتل لغخم بس كمهم قم قم بقود لا بدي جيل نلجيج بياتو لا بدي أي غخ نلجوه يسفر لا منام قم قم بجيف بيج لا مع ذلك عند لول فعندي نكن فمن في مشروعية التخصص في يون الجين يون الجغو في حديث ولو على حساب الفقه دون تمقوي تكسي تلقي نب دغ مانام تكسي دغ دغ رك dégg nga xam naa sunnatun sunna saabitatun bu sax wa xadisun xadis saxiwun bu wér mashhurun bu siiw dina am na bu wér boo xam ne mën na cee déggee ne taxassus lislaam daf koy sàkku ci wàllu xadis loolu nag dégg-déggam la woowu loolu qawlu nabi mooy wax yonent bi sallallahu wa sallam na dara yàlla naaxal na dara yàlla naatal wala na dara allahu yàlla imraan nit koo xam ne samia dégg na min naas ñun maqaalatan ak wax فحفظها ممكلك فأداها مجوخك كما سمعكم من كدك فرب حامل فقه برنا كدك فقه برنا كهن فقه فرب حامل فقه برنا كهن فقه لا فقه ددك فقه له دكنيال ورب حامل فقه برنا كدك فقه إلى من جمسك وخمنا هو مم أفقه ورب حامل فقه برنا كهن فقه إلى من جمسك وخمنا هو مم afqahu moo gën a dégg minu ci moom mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wax na ne yàlla yàlla naatal kanama koo xam ne dégg na suñu wax mokkal ko daal di ko jox nit ñi comme nu ko déggee yonentu nag ne bëri na ko xenu fiq te te déggut fiq bëri na ko xenu fiq yóbbul ko koo xam ni moo ko gën a dégg fiq bëri na koo xam ne ni ah, eh, day leen ay xadis yu bëri yoo xam ne xamu ci dara wala boo xam na ci dara waaye kam yóbbul xadis yooyu moo ko gën a dégg xadis waral dëgg-dëgg danaa wax ne xadis moom ne lii laa ci déggee rek soo paree nag nga jottali nit ñi am na ñoo xam ne ni seen dégg-dégg raw na si dégg-dégg fuuf waaye nag xadis bi mën na cee jàngee ne jottali nit ñi xadis bi di la yow déggoo ko يرنت يا محمد صلى الله عليه وسلم سنتان لك تنيان لك ويرف يا الله ننتخل كرمم ولا يا الله دوغل كو تشال جنا ينتخي ونظر بتخفيف الضاد تي او يفال ضاد غن نظر نتخ ن دنگ يا الله ننتخل مانا وتشديدها ولا نشد الضاد غي نظر من النظاره موجوده النظاره وهي مو الحسن مو رفت ورونقو ak xéeme wal baax ak taar fa nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yadoo ma ngay ñaanal li raawil xadis ñeel kuy solo xadis bil husni ci rafet wal baax ak taar mutlaqan nu mën a demee fi dunya ci àddina wal axirati ak alaxira yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñaanal kuy solo xadis yàlla may ko taar ci àddina ak alaxira waqila wax na innal maanaa naka maanaa bi muy ablagu yàlla na ko jottali allahu yàlla taala kawe na nadaaratul jannati nataqu aljana mooy taari aljana waraawil xadis kii nettal xadis alladi ki nga xam ne daa ñaan na lahu ñeel ko nabi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nadaarati ci naat naat ak kanam <coughs> wala yàlla xeggale ko ci aljana yu naaje xoo loolu riwaayatun mooy solo bi lafdi ku nettali baat bi rek dégg ba pare nettali ko ni nga ko jàngee yonente yàlla taar wala mu ñaan yàlla yàlla xeggal la ci gën a kawe wala kaana li la nekk du dégg kullama anil xadis mboole maanaa xadis même boo déggul maanaa yi jottali nga jottali baat gi yonentu ñaanal na la ci ne ma ruba xaamili fiqhin bëri na ko xenu fiq ilaa man jëm ci koo xam ne xoomu a dégg fiq minu ci moom lu may walaw kaana dina nekk na laa fahma di rek dégg di nekk na eh, laa fahma di rek ko ñeel fi xadis fi xadis abadan bu faw maanaam wax gi na ku a fiq dafay war ne waa ji nettali hadis bi déggut maanaa hadis bi lépp am na lu ci dégg nag waaye teew yonent bi ñaanal na ko mu ne bal bu déggul ci hadis bi dara sax yonent bi ñaanal na ko mooy li mu wax ne rubba xamili fiqin bëri na ko yenn fiq laa fiqa di rek fiq la xaw di ko ñeel bëri na ko yenn fiq te te xamul fiq ndeysaan moo tax waroo kaan di la nekk laa faama di rek dégg loo di ko ñeel fi hadis si hadis ba faw na jottali rek yonent ñaanal na ko yàlla وهذا لي يدل لي تكتر على مشروعية رواية الحديث يونال الجنيون نتي حديث دون فقه تامو ci dégg dégg ba li fi nekk yadul dafay tekki ala istihbaabi zalik ci sopp loolu dégg nga sopp gi nag du ñàkk dégg gi lañ sopp waaye jotli gi ko jotli kay moom la yonent santaane di la déggoo ko nga jotli ko lool jotli lañ santaane waaye nag ñàkk koo dégg moom du luñ mën a sopp moom ñàkk ko dégg a danga du danga du ci am bakkaar su fekkee sàgganoo waaye nag ñàkk dégg sopp waaye dul dana tegtal ala ana raawil xadis ne kuy solo xadis doon ilmihi te xamu bi fiqhi ci fiqu xadis boobu mahmudun luñ sant la gayra mazmumin ngàññuñ ko waa noonu nag moom aji xeewoo la bi fiqhi ci jëfam haza bi daawatu nabi ñaan ak yonent bi sallallahu alayhi la ko ñeel ko buy nettali xadis a déggu bi sallallahu alayhi ñaanal na ko yàlla kooku yàlloo na ñaan ak waaye nag nettali ko dégg ko kooku ëpp solo waxa taqaba tofal na ci raama xor dégg nga hormuzi mu ngi trois cent soixante ci gàddaay gi tofal na ci hada xadis bi la xadis fi kitaab ci téeram al muhaddisul fasil bayn raawi wal waayi moom la tuddee téere boobu بقولي تيوخم ففرق تقلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ناقل السنة ديجن تكوي تخل سنة وعيا كوكو موكل دينغ كينا خمنا دفعي تخل رك أكي ديج يرون صلى الله عليه وسلم دفلنا تقل ودل متكتل على فضل الواعي تنجني لك موكل كي نتري تموكل ولا بوك كينا خمني مو خمنا لالي حديث دي وقت يرون تورنا مو هبو بقولي تيوخم furu bu xaamee fiqhin bëri na ko xenu fiq yaa man jëm si nga xam ne xoo moom afqahu moo gën a dégg fiq minu ci moom yow mi xenu am nga ngeneel waaye nag ka nga jottali kooku wala ëpp ngeneel ka nga jottali mu dégg ci li nga déggut kooku ëpp ngeneel kon la sekk ne am xadis bi waaye dégg maanaa xadis yi mu ëpp solo foof nettali di yi waaye nettali xadis yi nag moom it lu nga ngeneel la ndax moo tax eh, borom fiq bi jot ci xadis boobu لولو وخن نشرياتو شي نصيحة أهل الحديث بو الخطيب البغدادي ورب حامل فقه برنكو ينو فقه غير فقه فقيه ويدقو فقه برنكو ينو فقه تميت تدقو الدرج فقه ويتيور أمن نغنل ومن بوجوب الفضل جورا نغنل لأحد ما نيال كان اسم نار يسبط لا يسخي الفضل نغنل الآخر نيال سو سخل نغنل كان رك سخل كو كتلس كلا جوتين fiq ba bu fekkee yow ma ci dégg lum déggut xam nga ngëneel moom mi la ko jottali it xam na ngëneel ndax moo tax nga jot si wa misaalu zalika misaalu loolu daal antu masala nga ma nga nga misaal dégg nga euh, benn Malik diggante Malik ibn Anas wa Ubaydillahi al Umari ak Ubaydillahi al Umari wa benn Shafi ak diggante Shafi wa Abdurahman bun Mahdi عبد الرحمن بن مهدي وبين أبي ثور أكدقنت أبو ثور وابن أبي شيبة أكدقنت ابن أبو شيبة لا بقول واحد دال فقيه بي كده فق بو أمي جنيل رك كده حديث أمنا جنيل سواني كيكو جوت الحديث بي أمنا نغنيل سواني فقيه بي كده فق برم جنيل جنيل لن, لن moo ko def fiq nettu xadis bi nga xam ne moo ko كل ويرك xadis ya wér yu wérut du loolu moo tax mu mën cee jëlee fiq googu bañ ki ko tuddee faqih ñu ne waaw ñu ne kon kon moom ngëneelam ci nitu xadis gi la ko jële su fekkee dangaa tudd nitu xadis ñu ne la netti xadis nettali rek goo xam ne ni xamoo la fiq ba dëgg-dëgg te xadis bi li taxoon mu jug mooy ñu xam fiq ba jëfee ko yow nga nettali ko rek xamoo fiq ba ndax xam na njëriñ ah kon su boobaa it boo nekkee muhaddis it foo fiq taxaw sa kanam wala war a mun a ñaar yooyu daal kenn mun leen teqale ñoom ñaar ñëpp bokk am ngëneel muy faqih bi ak muhaddis bi jëlee ko nag fiqul eh, xadis moo gën nettali xadis boo déggul ndax li taxoon yonent di wax moo ñu dégg ko mu jël misaal diggante Malik ibnu Anas nga xam ne faqih loon ak Ubayda al Umari faqih loon nee na ñoom ñaar koo ci tudd rek kenn du ci wàññi kenn ñoom ñaar ñëpp borom mi nga la شافعي faqih la woon Abdourahman bun Mahdi muhaddis la woon kam njëkk a tudd rek mooy faqih bi kam mujj tudd mooy muhaddis bi Malik ibn Anas faqih la Ubaydullah Umari muhaddis la nitu xaddis la Shafii faqih la Abdourahman bun Mahdi nitu xaddis la Ibn Abi Sawri faqih la Ibn Abi Shayba nitu xaddis la nee na ñii koo ci tudd kenn du ko wàññi kenn du ko suufeel fa innal xaq naka xaq naka dëgg yaquudu ko dana la mat ila an taqdiya nga atte li kulli waahidin ñee kenn ku nekk minum si ñoom bil fadli ci ngëneel ñi daal kuñ ci tudd rek nga jox ko ngëneel te kii faqih la kii muhaddis la moo waral ñaar yooyu mënuñoo tàqali ko muhaddis bi ak faqih bi ku nekk dafay soxla moromam ñoom ñaar ñëpp ay borom yi ngëneel lañ wa hada li tariqu insaaf moo yoonu màndu li man salakoo ñeel ko ko sóobu wa alima mu xam alxaq wa ilmul xaq mooy xam-xamu dëgg li man amahu ñeel ko ko jublu wala mi taxaddahu te jéggawut ko ku bëgg dëgg daal bëggoo koo jàll da nga xatteel mu xaddis nga neel xatteel borom xam-xamu fiq bi nga neel ndax borom xam-xamu fiq bi xaddis yi nga xam ne ni moom la ko mu xaddis bi andil ci la kon moom ci nga neel nga neelam ci mu xaddis bi la ko jëlee waaye mu xaddis bi it lañ soxla woon ci xaddis yi xamu ko borom xam-xamu fiq baa ko xam kon kooku it xam nga ne am na ngëneel moom ñoom ñaar daal borom ngëneel lañ waaye xam nga yàlla yërëm Allah yàlla salafa mag ñi فقد كانوا نكون أسبق دقنا جيت إلى كل خير تبيب يو وعلم أقم قم وإنساف أقماندو من يدال من قاو حنا قم قم بني هيوني ما نقول نيوش جيتون ولهذا لم تخلم ما روا بمنتلي مطرب تهمان الوراق ميفاتو 125 كي قداغي فيما يقال تشيني وحديثا بحديث مطرب له مثلا تلا بحديث وصول ني لاج كان معنا وشي معنى حديث بوبو واي ما ندوم تخنا قال وحنا لا ادري قومكم innama ana naka man zamilatun aji yéenu xadis rek la mooy leen xaw ma man damaa yéenu xadis rek dama yéenu ay xadis waaye daal xaw ma <laughs> zamila mooy gëlëm gu yéenu rek fa qaala mu wax lu ñeel ko asaayilu aji laaj ji wa kaana nekkoon moom muy laaj xaqilan daa ji xelu mun sifan daa ji mandu ne ko jazaaka yàlla na fay la laa yàlla xeyran yow fay na alayka naka nekk na sa kaw min kulli xulwin ci lépp lu neex wa xaamidin ak lépp lu aji forox dégg nga loolu rek la ko wax moom moom mi nga xam ni moom moo doon laaj ndax ku ge ku enu hadis luy xam ne nii rek lu ñu war a mën a jariñoo la yaa ngi dégg nga moo xam lu ñuy jëriñoo te mu neex wala lu ñuy jëriñoo te mu forox yaa ko xenu di lee déggoo maanaam hadis yi am nga ngëneelu ku xenu li nit ñi soxla nga xam ne nii lépp lu nit ñi soxla rek yow mu ngi sa kaw maa dara manqué ci su ko defee aji laaj loolu la ci dégg. وانظر قول إلا إلا للسلف كما قال من رواة الحديث نيال يعني الحديث في العبارة التالية وحيدك من يل إلا نتل سخوين دلنا ما قال كوين نتل الحديث بداون كتب دي راوي عالم لن كنون تدي برمكم قل ويداون كتب دي راوي أجي نتل يقول من محمد بن منكدر من فاتو سانتران تشيك دايجي ما كنا نكون ندعو دي هوتي الرواية ندعو دي هوي الرواية نتل إلا رواية الشعر الموين نتل ويه kuy nettali way daal moom lañ leen tuddee raawi wa maa kunnaa nekk ñoon naqulu di wax lilladi ñeel ki nga xam ne yarwi dana nettali ahadis al hikmati hadisu xam hadisu yi nga xam ne hadisu xam-xam la maanaam hadis yi am xam-xam yi am njëriñ daawuñ ko tuddee illa aalim lu mooy borom xam-xam ki daan nettali hadis aalim lañ ko doon tuddee waaye ki daan nettalee way moom lañ leen tuddee araawi ñoom noonu lañ doon màggalee nitu hadis bi wa mimma sabaqa bokk na si nga xam ne jiitu na jëm si moom asalafu mag ñi ne almi ci xam-xam wal xëyr ak yiw wal ak dëgg bokk na ci li nga xam ne mag ñi jiitu nañ ci ci wàllu xam-xam ak yiw ak dëgg ndax ñoom ko lu baax lu ne jiitu nañ ci bokk na ci nañ jiitu ak tan bi tanbihu xee gi ñu yeete ila anna ilmul xadis ne xam-xamu xadis ilmun xam-xam la boo xam ne laa yaqbal du nangu sharika bokkaale ko beneen xam-xam wala tawsi al himmati du caageen tasaare sa yitte ala xëyrihi ci lu moom maa ànd ak moom jël sa yitte def ko ci xam-xamu xadis def ko ci leneen ñaar yooyu ñu nekk mag ñi daan nañ jàngale loolu da nekk mu xadis rek topp ko wala nga nekk faqi wala nga nekk leneen waaye daal mënu boole ñaar yooyu ba doon kàngaam ci ñaar yëpp lu mooy ñu yàlla dimbale ndax Malik imaam la woon ci fiq imaam la woon ci xadis waaye li not ci nit ñi daal nu boole ñaar yooyu la bëgg a wax يقول مو عربي ابو سليمان المرادي كوكو مي فاتو 270 تي غداي تلميذ الشافعي تاري بيب شافعي نمر رمنا الشافعي بيوسف بن عمرو بن يزيد شافعي فرم يوسف بن عمرو بن يزيد كو يوسف مومو وكان نكون من كبار فقهاء المالكية دي بوك شيني مك شبرم قم قم فقهي شنجر مالك موم يوسف بوبو ويفات 250 تي غداي Shaafi daf ko romb woowu moom yaskuru mu ngi nettali cheyan dara min alxadis ci xadis Shaafi romb ko mu nettali xadis fa qaala Shaafi ne ko yaa Yuusuf yow Yuusuf turiidu dangaa bëgg an taxfasa nga wëttu alxadis xadis wa taxfasa nga wëttu alfiq fiq dangaa bëgg nekk mu xadis bëgg nekk fiq faqih ay xaata ko sori Shaafi ne ko ñaar yooyu mënoo leen a boole dégg nga ndeysaan parce que ñaari xam-xam la yoo xam ne benn bu nekk dafa xóot lool وقد قدم جيتنا الخطيب خطيب هذه الكلام بلا وقت من الشافي الشافي خطيب البغدادي نتلو أنه وحجي الشافي وهم أي يصف من الذي كان خمنا يبرو دنا رو في علم الحديث يقمكم حديث بقوله جوهم أن يعاني مجانكو أن تك علم الحديث دون ما سواه رسول المم لأنه ندخ قم قم بوبو دي حديث علم قم قم لبو قمني لا يعلق دنك أج إلا بما ما إلا بمن وقف لمجي وخم تخولنا نفسه بكنم عليه خم خم بو بمي ملل خم خم حديث مشافي دفن خم خم لبو خم دار فوق في سيد تياب يدور لكو أج ولم يدم دن تابع غيره للمم من العلوم خم خم إليه جمشمم من حديث كان دكو بولك بنين قم قم مم رك سينه ثم أخرج mu génne alxatibu xatib aqiba zalika ci mu jëg lool ibaratay ni ñaari wax yi ataalisé yi ñëw ñaari wax yi mooy lan mu ne yaqul mu ngi wax dégg nga yu abu yusufa al qaadi abu yusufa al qaadi mu ngi faatu cent quatre-vingt-deux ci gàddaay gi ne aneen mu xam-xam cheun mbir la moo xam ne laa yutika du la jox baadahu lennam hatta tontiyahu lu mooy nga jox ko kullaka sa lépp xam-xam balaa mu lay jox daraam dafay fekk nga jox ko sa lépp wante yow ida ataytuhu boo ko joxee kullu ko sa lépp sax min itaihi mu jox la albaada lenn ala xararin yaa ngi ci mu ngi ci mu yaa ngi ci yaa ngi ci dégg nga dansé daal même boo ko joxee sa lépp sax pour mu jox la lenn sax wóorut kon xam-xam pour nga xam ci dara daal lu mu néew néew foo nga jox ko sa lépp te bu nekkul ne ku ko jox léppam sax mu jox la lennam wa yaqulu wa abu ahmad nasr bun ahmad al iyaadi الفقيه سمرقندي فقيه سمرقندي لا ينال دنيام ولا لا ينال دام هذا العلم علم بلا قمقم إلا من عطل لمي كويت الدكان وأي بتجم وخرب مرابل بستانه طولم وهجر مقاداي إخوانه مبكم ومات مدي أقرب أهله نيجنا جيجا شاي مبكم إليه جمش فلم يشهد تيو جنازة تورنيوم بنا أم قم قم فوز راب ستولي راب تقاداي سيمبكم bokk yi la gën a jege gën a àddina sa dootum teewi ca néew ba ku mel noonu moo mën a xam-xam waaye koo xam ni lu xew mbokk yi gis ko kooku du xam dara lii moom mboolem xeet xam-xam yi la fa nekk na xaataani ibaarataani ñaari wax ñaari wax yi xaqan di dëgg fi ci xam yi jëmee mboolem seen mboolem xeet xam-xam yi foo nga jox jox leen seen lépp xam-xam bu mën doon danga nga ko jox lépp mu jox la daraam da nga gàddaay lépp door koo xam بولم قم قم قمر دون كن فهي لولو في علم الحديث تي قم حديث أو لا تلقنا تلقنا تلقنا يي دينو كن حديث تلقنا يي أن تقال ني وقت وأحق تلقنا هور وهذا اليوم ما قصده مولج بن الخطيب الخطيب عندما ساقها بمكم مانجا في ذلك السياق تبولو مانجا bu ëndee daal ne xam xam yi daal foo nga def ci te yii pour door ko xam ak wala taxasus yi ngir jagu fii kulli ulumi ci bépp xam-xam eh, ci mboolem xam-xam yi maanaam am na seen maanaa jagoo ci yeneen xam-xam yi am na nuñ koy defee waaye fa fenaan ne xadis bu dee ci xadis moom la huñal na ko maanaamu maanaam alxaas ga aji jagoo bii ci moom bu dee xadis nag am na luñ soxla nga góorgóorlu ci ba taxasus ci xam-xam boobu dégg maanaam bokkut ak ni ngay def ni ngay jox yitte ci yeneen xam-xam yi bokkut bokk ci yi gën a jafe فهو متخصص جاولا قوقم لا يقبل دونه الانقطاع دوك الى غير جمسل المم مهما تار لمنا ياغ سمن التفرق وقت فيخ في تحصيل تشوتكو لو من ياغ ياغ ياغ تشوت خمكم حديث بوك بول لري رك مرتشلا ومهما ظن ساي نورتي طالب وكيسا كو حديث انو ني مم تملا فاسنا منو تش وتدلع تي دينغا هنو نتشلو بري با لقق فيس لأنه نخمم آه، خبرة خم قملة دقيقة بسو وحاسة جيد لطيفة بسو ويمدال لا نجرت نجرت نيو فورنجا بوكو بولك لنا دال لكنياك أغلوم ياك ياك داخ دهام أي سو سو يبري وخمني لا تدوم دوسخ مم سو سو يو إلا ما بقى التساق لما عندك دسك تقبل عمي شخم قم فهو نك شخم قم برك شهدي سك pour sew sew yooyu ban laa boo ci gëjee lu mu tout tuuti rek ñàkk expérience boobu nga ci amoon wa suraana ma tufsidu dégg nga wala boog ma dégg nga tafsudu gaaw naa yàqu tilkal xibra boobu la xam-xam wa mu yuqu yuqu mu wéet tilkal xaasatu yooyu la yëg-yëg yeneen bu dogee ta taalibu taalibi ba aneen mi ci xam-xam fa taratan ab diir ya siratan bu néew xam-xam boobu nga xam ne mooy sew sew yi nekk ci wàllu xadis daal boo ci gëjee lu mu néew néew rek daal di fàtte mu dañ ci yow kon xam-xam la boo xam ni nekk ci rek nekk ci rek ndax jamono yi ci boom dégg nga dafay soppeeku te xam-xam bi dafa jaar jaase atuwaar ay étape par étape kon di jong jong jànkuwanteeg ñooñ xam-xam boobu di ci góorgóorlu nga xam ne lu xew rek nga xam ko. loolu daf ci baax ndax xam-xam la boo xam ni jamono yi ci day day day day day yokk di màgg ci kem jamono yi yaqul mu ngi wax fii bayaani zaalika ci leer loolu Abdurahman bun Mahdi mu ngi faatu 198 ci gàddaay gi mais innama masalu saahibil saahibil xadis naka misaalu borom xadis bi man sarati simsaar mu ngi mel ni misaalu dégg nga simsaar mooy koo xam ne ni dafay dox diggante jaaykat bi ak jëndkat bi pour yombal mbir mi isa xaaba ñi di ko wax mer leng idaa xaaba su fàddu ani suuqi ci marché bi xamsata ayaami juróomi fan taxayara soppeeku na basaruhu gis-gisam yow mi nga xam ne yaay dox ci diggante client bi ak jëndkat bi ak jaaykat bi boo gisee ci marché bi juróomi fan rek boo ñëwee mbiru marché bi dafay soppeeku ndax prix yi day yokk yi wàññeeku lu bëri dootoo ko xamati doo amati expérience marché danga cay nekk rek waaye boo ci gëjee tuuti rek yi lu bëri réer la xam-xamu xadis yi noonu la mel saa su nekk foo ngay jaxasoog ñooñ xadis ak ñooñ xam-xam ba expérience yi nga xam ne yàlla nga koy génn nga di ci jot bu dul lool rek bu dul lool rek danga gannaaw te doo ko yëg doo ko yëg wa bi lisaani ahli asrina bu dee ci làmm yi suñ ñooñ jamono masalu saaxibil xadis dañ naan misaalu borom xadis bi man sari taajiri taajiri al umaraat dafa mel ni koy commerce ci ay weccet laa yastatiw du attan an yastafida mu jëriñoo wa yarbaha mu bénéfice illaa iza kaan way mu nekk mu taabian daji topp li aswaaqil laat ñeel marché yi nga xam ni fa dañuy weccee ko xaalis yi doo leen xitaayin ci du dog ndax xam nga ne xaalis yi léeg-léegi day yéeg ko wàcc su ko defee boo gëjee ci marché bi doo xam moo tax foo ngay teew saa su nekk fa xataan bu dogee ci marché bi yaman waaxidin benn bis أصبح لي مجو كالجاهل كم كرير بهذا السوق بلا مرس تماما تي لومت وكأنه لف منهم لم يكن نكد عليما داجي قم بيش موم يوما أبس من الأيام تي بسي dafa mel ni mosoo xam marché bi yow mi gëj ci marché bi ñu weccee ko xaalis yi laano ndax moom laa station du attan astere mu jënd aw ya bien wala mu jaay li adami ilmi yi ngir ñàkk xamam bi ixtilaafi asxaari umulaat ci wuuteeg prix weccat yi aladi yi nga xam ne te bëddul dafay soppeeku kull saatin bépp wër noonu la expérience yi dafay yokk xam-xam yi di yokk jamono yi di wutee mustalaxaat yi baat yi ñuy jëfandikoo léeg-léeg muy changé moo tax di jaxasoog ñooñ xam-xam boobu saa su nekk daf lay may expérience dina may njëriñ ngay yokk su ko defee sa xam-xam bi di dëppoog jamono ji nga xam ne ci ngay dund loolu da nga nekk ci erreur boo xam ne doo ko xam wala zaalika loolu tax la muy jàll defut imaamu imam ahmad mu ngi faatu 240 ci gàddaay gi li talabil xadis ñeel sàkku xadis zamanan jamono yéen taxi dana jeexandoo fu moom wala muy waqit wuutarul loxu ñeel ko fatratan ab diir goo xam ne yajaaluha dana ko def xaddoo muy doyam imam ahmad daal sàkku xam-xam xadis wuutarul ko fu mu yem indama su ila bañ ko laajee ila mata yaktubu kañ lay bind rajulu góor al xadis xadis qaala mu ne xataa yamuta ba muy dee rek na ci nekk ba muy dee dégg nga su ko defee kon xam-xam bi loolu la laaj def ci ca waxtu def ci sa yitte saa su nekk ngay jaxasoog ñooñam saa su nekk nga di ci góorgóorlu ndax dafa am ay sew-sew ak ay mbir yu làq yoo xam ne nii dégg nga ñi ci nekk ñu ngi koy feeñal saa su nekk boo ci gëjee rek mu raw la boo ci gëjee rek mu raw la xaw naa jegeeg taalibeeg sëriñ boo gëjee sa sëriñ rek tëbb yi doon wàcc ci jamono jooju nga daal di ko fàtte mu daal di la raw xaddis yi noonu la mel ndax waxi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kon yow mi koy jàng da ci nekk rek di ci nekk rek ba baa ngay génne àdduna in uridu lil islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi alaykum wa wa barakatuhu